لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما لنا إلا إليك التجا دهرا الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki taalibe bi yéen ñi seetaan seen seen bi di Ndindy Actu nuy am mbégte di dellusiwaat ak yéen ci jataay bi ñu baaxoo di ko ànd ak yéen muy jataay bi ñu wooyee jataayu xasiida nu ci ànd ak jànkati xasiida yi di leeral njàngum xasiida euh, ñuy siyaar suñu Muntaxa di ñaan yàlla mu may ko fan wu gudd lool si ànd ko waaye di siyaar ak ñaanal Cheikh Abdoul Fatah ibnu Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne tey fii dañ koy defee ci këram di ko ñaanal yàlla ma may ko fan wu gudd lool te ànd ko wér waaye ci lañuy sotoxlu di ñaan sëñ abul barka mi xalifa sëñ fàllu yàlla suñu borom guddal ak fanam te wéral ko di ko ñaanal gépp kilifa euh, nuy àndaat ak yéen ci koo xam ne baaxoo nañ di ànd ak moom ci euh, njàngum xasiida muy ko ko man lool te bëgg ko lool di sëñ fàllu Mbàkke ibnu Cheikh Amadou si euh, Abdul Fatah moom la ñu àndal tey xam naa dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo rek incha allah bu ko defee ñu daal di ñëw ci waxtaan kon sëñ fàllu mën ngaa daal di nuyoo rek incha allah ñu tàmbali. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñoo leen di ziar bu baax di amaan mbégte ci toogaat ak yéen wala ñëwaat ak yéen ci jotaayu xasida di lo émission boo xam ni xëy na ñu bare bari ñu ngi koy ñu ngi ko doon xaar waaye nekkoon ci ay yitte yoo xam ni xawoon nañoo man donte lu doon du yoon sax waaye xawoon nañoo man ba tax ñu gëj ko def waaye ñu ngi koy tuwaat bu baax a baax a baax di la ziaroot baax si yëpp di fataa ziare soxna Ndeye Fatah ak Serigne Assane Diop Serigne ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun liggéey bi yëpp suñu euh, jërëjëf xam naa sëñ Fallou kon mbokk yi dab jataay bi ñu leen di euh, xamle kafe gi nga xam ne moom la àndal incha allah ci jataay bi nga xam ne moom nuy gunge di tiraanga yi sëñ Fallou di kafe gu am solo neex lool macha allah ci baax ci jataayu murit euh, képp koo xam ne bëgg nga ci rek mën ngaa woote ci numéro yooyu loo ci soxla rek incha allah da nga ko ci jot. Euh, wax nga ko léegi muy jataay boo xam ne baaxoon nañ di ko ànd ak mbokki taalibe yi ñu safoo ko lool itam fu ñu tollu di di di ko yittewoo ak a laaj ak namm tey nag sëñ Fallou dañuy dikk ak yow ci xëy na buntu boo xam ne wala fi ñuy tàmbalee dana xam a waroo fañ daan kiyee euh, dañuy dégg nit ñi naan njàngum kuréel njàngum kuréel léeg ñu naan njàngum benn benn mu ma nekk ko tedd gi Seexul Xadiim am na kuréel goo xam ne daa nañ ko jàngal wala am na ñu ko daan jàngal ndax itam Euh, ak kuréel ñoo ko daan jàngal wala benn nit moo ko daan jàngal wala day am ay kuréel yu ko daan jàngal. ok jërëjëf sëñ laaj boobu am na solo lool jëmmi sëriñ bi radiyallahu anhu amoon na kuréel bu ko daan jàngal damaa xamul nag ba xam am na ñu daan toog di benn bennal ndax am na ay xese yu bare bare yu ñu ci nettali ni am na ñu ñu ko daan jàngal par benn am ñoo xam dañuy jekk-jekk rek comme ni ñuy defal ni defal sëriñ si léegi rek kenn dem toog yëkkati fële. te moom mën nañoo wax ni sax ab kuréel moo moo ëppal mu daan jàngal ndax kuréel bi nga xam ne sëñ Masamba moo ko jiite woon nga xam ne sëñ Mbay ma nga ca woon ak ñu bëree bëri ci mag ñi kuréel boobu daal mën nañoo wax ne daan nañ ko ab kuréel daan ko jàngal waaye mënu ma cité wala mënee su mënee suufa cité nii ñu jàkkaarloog nit ñi kii daan na jàngal sëñ bi waaye xanaa xëy na mën nañoo wax bokkoon na ñi daan jàngal sëñ bi waaye jékki-jékki ni kii daan jàngal sëñ muy kenn nit jàpp naa ne bu amee it bëriwut wala comme ni ma ko waxee sànq rek nga jékki-jékki gis ab sëriñ toog nga ñëw yëkkatil ko. jàpp naa ne ci noonu la amee. maanaam daal mënoo ne kii moo nekkoon ab jàngkatam. waaw waaw. Hmm. waaye am na nag ah, ñu ràññee ko ci ay jamonoom ñi nga xam ne daan nañ ko jàngal. Ah, am na ñu ràññee ko ci ay jamonoom. Hmm, comme comme sëriñ sëriñ Ibra sëriñ booba. Hmm. sëriñ Mayib Guèye. sëriñ Moudou Ndiaye. sëriñ Cheikh Ndaw sëriñ Ali Silla ak sëriñ Makhoudia Silla sëriñ Alhaji Seck sëriñ Moudou Kane suñu sëriñ Ousmane Sow sëriñ Ibra Samb sëriñ Booba Fall ak sëriñ Mohamed Fall ñii ñoo daan ñoo ñoo doonoon kuréel bi nga xam ne ñoo daan toog di jàngal sëñ bi ñoom ñoo daan toog di bi te it mën nañoo wax ni ñii am nañ gënulu sëñ bi mm-hmm. laa mën a wax mm-hmm. ndax jimmi air yi nga gis ñu koy ñu koy yeesalaat yëpp daanaka ci ñoom génnul ci ñii wala bu génn ci ñii it ña topp ci ñoom lay nekk ndax ab kuréel mën naa am kuréel 1 kuréel 2 kuréel 3 comme ñii bi ñu yesoo xëy na bi ñu fi nekkatut am na beneen kuréel bu sosowaat boo xam ne suñ mooy mooy bi nga xam ne suñu may bëgg jiitoon doon debii suñu may mën a ko bañ jiit ndax suñu may bi waaye bi mu fi jógee it ay doomam doomam bokkoon nañ ci kuréel ba sëñ sëñ Cheikh Guémé bi yaakaar na sëñ Youssou Ndaw ñoom ñëpp nekkoon nañ ci kuréel suñu Masamba kon jàpp naan bi fi ñu jógee ñoom it ñoo jël reef bi yaakaar naa loolu lañ ko waxee relève bi ñoom tamit ñu def liggéey bu am solo boo xam ni ñii defoon nañ ko ma am leen lu ma bëgg leeral it ni jëmmi njàngum benn benn njàngum dëbbe sëñ bayu ko fi maanaam kii yëkkati kii yëkkati kii aw yaakaar naa waxoon na ko fi hmm. dafa am ñu ma koon laajat hmm. waaye sëñ bayu ko fi sëñ bi li fi bàyyi mooy njàng moo xam mbooloo dañu waxoon ko air yi suñu masamba yi wala dara boo xoolee sax jëmmi yi nga xam ne benn benn lay doon kii day wax kii wax ñu dañ koy tuddee air yi suñu yuusu ndaw wala suñu hmm. ñaar ñooñu bi fi sëñ bi nekk yaakaar naa jiitu ñun njàng ma suñu yuusu ndaw bi ñu daan njàng sëñ sax yaakaar naa yaakaar naa mi ngi bokkoon ci kuréel bi nga xam ne suñu mbéy moo ko jiitoon kuréel bi suñu mbéy jiitoon mooy kuréel bi suñu masam bii mujj nga xam ne ñoo jàng ay 78 <clears throat> ay 79 loolu des naa yàgg tuuti mën ñoo ñoo commencé di njàng njàng mi nga xam ne day doon njàngum dëbbi mën nañu cité yenn mi daal di maalaw ay nawetu mi daal di yarudu comme yooyu ñoom ñoo commencé ñoo ko jàng waaye sëñ moom am na ku ma nett ni ma dawut bëgg ñu ko jàngal ay li muy bëgg mooy air boo xam ne ñëpp dañoo waxandoo. ñëpp dañ ko yëgandoo. macha allah ndax air bu ñuy air bu ñuy bu ñuy bu ñuy di wax ñee di rek ñay wax bu ñu waxee ñay nopp bu noppee rek ñay noppi mën nañu def yenn mën nañu am lañu def. Mm. te suñ bi dégg naa daawut nangu kenn boole am jàng boo xam ne ñu sax ni euh, bu bi daan jàng bu bu ci kenn nekk koo xam ne baatam xaw naa naqare koy woo yónni ko wala mu woo ko def la ko dara ba xam ne moo ñëwaat dina fekk njàng mi jeex. day mandargaal fonk gum fonk njàng mi. macha allah wax ni nodd bala ko kenn def dañuy sakk maam sart la ci ki koy def baatam neex wala bari na ci bokk li ñu koy tudd njàngum xasida it noonu la demee bala ko kenn def sàkku nañ ci yow sa baat bu neexut it sa baat mën a téewum njàng xëy na loola la jublu loola la jublu ci njàngale beneen bi ci topp wax nañ ni fu ko daan fu ko daan jàng it fu mu ci lu mu di nekk danaan tekk diggu leen ba ñëpp day yàgg suuf nga xam ko booleeg dara. du ko dara day yegg suuf diglu leen ba noppi. Mm-hmm. bu doog ak leen mën def. macha allah jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou ci leeral yu am solo yooyu mu mel ne kon bokk yi seetaan ni ñu ko sàkkoo woon ngeen ko noonu am na ay yenn ci ay jëmm yuñ tudd yoo xam ne bokk nañ ci kuréel gi daan jàngal euh, ku tedd ki kon wax nga ko léegi mu mag ñi nag lañ doon topp xëy na jeexaluñ waaye tey dañoo am mag moo xam ne bugg nañ koo namantiku muy sëriñ Aliou Fall am njàngam moom la ñu leen bëgg a dikkal allah allahu taala ci eeram eh, mu wuute lu mel ne midaad yi ak muwaay bu ak xëy na euh, xeeti xasaay li nga xam ne jàng na ko ci suñu Aliou Fall moom tey lañ bëgg a dikk ak yéen ngir xamal leen ak moom ak yan jàng la jàng incha allahu taala foofu lañu bëgg a waxtaane ak yéen tey. dafa doonoon koo xam ni mën nañoo wax ni wala mën naa ci jàngat jàng bu boo xam ni damay wax ne ci baatu ci baatu gone yi la war ndax boo yow yow yow miy diglu jàng boo ko digloo ne xam ni kii baatam bi neex na. te mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yuuxuta li muy yuux mi ngi koy way ci baati gone yi léegi leer loolu laa waxut sànq baatam neex na lool tubaarkal la boo koy dund sax ndeysaan sa yaram bi day daw daw ba xam. te nangu na waaw te it nangu na lool am ñaar dafa doy yaram dafa dafa yàlla dafa yàlla moo taxoon tey ma ne nañ ci nañ ci dugg. léegi waaw xam naa ñu dugg ci léegi xam nga mag ñi comme niñ koy bàyyee xel euh, bëri na xasida yoo xam ne dañ koy jàng bu ci ne rek mën naa jàng midaadi mën naa jàng nawaytu mën naa jàng jës bu mooy bu léegi ci ban xas ci ci gën nga ñu bëgg a dikkal ci njàng. waaw damay commencé ci mooy bu waaw nga xam ne donte ñu bari jëmmi air bi siiw na sax waaye ñu bari mën nañoo mën xam xamuñ ki ko jàng xam ñu bari ba dañ koy dégg ci dongo suñu saal bi rek daanaka li kuréel jàng sa bëriwul. loolu sax boo ne mën naa dégg am njàng moom da koy miin ci ay noppam lool comme lañu xamoon waaye leeral gi léeg ndax léeg sax nit tooñ ma ne ma soixante-dix-huit moom xamutoon ne am na ci njàng moo waral ñu bëgg di ci taxaw wax nga ko léegi xay na boo daajee ñii dégg danañ xam ne xamoon nañ njàng mi waaye nag ci yow la ñu xamee ne kii mooy sëñ Mbacke Fall euh, bala ñu cee dugg mu mel ne euh, dafa bari ndax ku mel ne sëñ Massamba nga xam ne benn xasida da ko mën a jàng ñetti yoon wala ñetti daaj ndax moom am na ci njàngum sëriñ Aliou Fall naan jàngee na ko ni jàngee na ko ne wala amu ci. moom nag diglu naa ñaari xasida yi wala fi ma ko sukkandikoo mën naa mën a wax ne amu ci mën naa wax ni benn moom xasida yëpp benn daaj la koy daaj ba mu yegg fi ma ko sukkandikoo mooy diglu naa jasub bi te benn daaj laa ko gis ma daaj ko diglu naa mawab bi te benn daaj laa gis ma daaj ko kon mën naa sukkandiku ñaar yooyu ni moom am njàngam benn yar lay doon mooy benn benn daaj nga dégg mu jàng benn daaj laa ko dégg mu jàng ko ndax ndax diglu naa ko ba mu jeexee yaakaar naa te gisuma ci beneen daaj kon nañ ci mooy boo war a njëkkante ndax mënuñ cee nga daajal ci ab kii rek bu ko defee bëru bi xàcc bëru bi ak ñu mën cee sotoxluwaale xam yiñ ciy leeral ñu leeral ko incha allah billahi min shaytaani hay bila manay walanti hay bismillahi yanmulu hay bila xadra ma qalbi bila kufuuri bila ixtiraabi له ختابي مهجدي لك ردائي لك سنائي لك الدجاي مجدي يا من سفاني يا من أماني يا من جفاني نهوي داي أسبل سطوري أسلي أموري كسر قيوري بلا كداي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سن داي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفيل هاي يا ذا الوهود يا ذا الوجود كل بجودي بلندي سفي وصولي بلا خفولي لجد بيسولي جمل ريداي هبل الدلاوة مع العلاوة هبل الدراية لدى الآن أصلحت حالي بلادي علي بهدي عيالي بلا بكاي macha allah tubaarkàlla léegi li ma ciy leerlu mooy ginnaaw bi nga daajee bureau bi ak xàcc bureau yi laa bëggoon nga leeral ma fan lay nekk ak itam maanaam yëkkati bu njëkk bi. ndax fu la neex nga ko yëkkatee wala daa am foo xam ne obligatoire la boo ci accès foofu nga ko war a yëkkatee. Eh, moom ay daajam nag du daaj mokkal. Hmm. waaw waaw loolu laa waaw du maam mën nañoo wax ni heure am yëpp sax. Hmm. benn du ci heure mokkal. ay suñ siisee eh, suñ mbéy comme comme bi yooyu hmm. waaye mën nañoo waxit ni am na bëru. samp bi it moom gisuma ko ci air bi. Mm-hmm. ah am na am na yeneen yu am samp ndax moom ay ay daajam. Mm-hmm. da mel ni yu bëree bëri sax day daaj rek samp moom. Mm-hmm. boo xoolee salaahi bi fadlillahi salaahi bi fadlillahi yaakaar naa waaw yooyu yëpp daanaka day daaj rek wala day riib rek ñëw samp moom noonu lay jàng waaye bii daa mel da jàng ci ci dal ci ci xëy na boobu it àll bi wàcc na tuuti <laughs> waaye bë bëru laa ci gis comme ni ma hamdali rabbi khayri murabbi khadram qalbi bil iqtidaay mën nga ko ah. bëri fudul foofu wala mën ko bëri fudul foofu. maam ma ko li ma ko waxee sànq. Eh, yaay xool yow miy jàng ndax air bi sax ma la ko waxee sànq bëri maam rarement ngay gis moom. benn kuréel laa la gis mu jàng ko ci yaakaar naa màggal màggal Touba 2000 xuma gàmm. xuma 2019 muy kuréelu Hizbut Tarqiyyah bu ndaw bi. waaye ginnaaw loolu gisuma geneen ku dul jàngat ko ñoom ci moom yaakaar naa lisaan sukkur ko jàng su ma waaye mu doon air boo xam ni xëy na mm, xam nu ñu mën a waxee sax mooy xëy na jafe na jafe na tuuti ci ci wayin yeeg ni muy nosole baat bee xëy na ba tax kuréel yëbuñ ko waaye jëmmi air bu neex la boo xam ni jàpp naa ne ku jël mooy bi jàng ab kuréel bu ab kuréel bu ko répété ba mu mokk ñu jàng ko jàpp naa ne dina jàng dina jàng air bu air bu air bu daw yaram bu neex léegi boo demee ba ci biir am na am na samp ci biir am na samp amul samp mhm. am na yeesalaat ci biir wala amul yeesal daanaka benn daaj la ko jàng ba mu jeex mhm. maanaam nga dem ba ci biir nag gën a yëkkati daaj bu daaj bi suufee nga yëkkati ko mhm. waaw yëkkati ko jàngat jàngat na nga doon jànge waaye du caag ne day soppi daaj bi waaw mën naa yeesal waaye du soppi yeesal mooy comme daaj fu mu nekk nga tegal ko feneen waaw waaye waaye waaye waaye amut amut amut deuxième daaj ak troisième daaj. ah muy maanaam maanaam boo ko bi rek day dem ba ci biir mu soppi son maanaam. waaw ton bi rek. ton njàng bi rek lay soppi waaw. waaye daaj bi daal ay bi. rek lay soppi. bu dee hmm. jës waaw jës bu it moom it jàng na ci bu neex yaakaar naa bi ci siiw sax mooy eh, ni ko jàngee ni ko jàngee ci fus si fus si bi sa filance na jàng na ko jës bu comme nii الحمد للحق المبين من كونه ليابين على الكتاب بالمستبين مع جميع عيني أحمد ربي عزيم حمدا تازي على الله مصليا على كريم هذا الوالي المنعم أشكر ذا الحز المجيد شكرا يلاقيه مزيد مسلما على واهي بقلقي وكلمي شغلته إذ كساني بقمة الميساني فخدمة في العالم له وفاء الشك واللامي لقيت بداعيا بما يحب ماديا وخلاي أغراضيا ثادا لدار الكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا بالمنتخى المحترم jërëjëf macha allah sëñ Fallou ci njàng mu neex mu am solo mu léegi li ñuy leer ba tey it ñu koy waxaat mooy ci gis bu boobu yi ndax nim ni mu amee woon ci mooy bi la amawaat ci gis bi nga xam ne maanaam. Euh, da ngay boo daajee rek daa am foo xam ne mënta ñàkk foofu ngay yëkkatee wala fa la eeru mokkal la daal loolaa bëgg a wax wala ndax du eeru mokkal. Euh, waxoon naa ko sànq ni ma la. wuute jàng eeru hmm. wala bu ko bu ko defee bëriwut. Hmm. bii tamit daa daa yem comme mooy bi sànq rek ni ma la ko waxee. du eeru mokkal te benn daaj la ba xasida bi jeex. Hmm. waaw benn daaj la ba xasida bi jeex donte moom am na samp am na bëru comme ni ma ko defee sànq. déedéet maanaam temps bi ngay ajaat rek maanaam niveau bi fi mu ne moom ngay moom ngay kiyaat rek am na xaaj bu ruut xam na ko defa sànq am na samp moo tax ne mooy bu ci loolu moo tax ne eeru mooy buum ci loolu. ndax moom am na samp am na samp te bee amul samp moom am na xaaj bu ruut te bee amul xaaj bu ruut loolu la ko loolu la ko loolu la xaw a wuute moom benn daaj la te fa la yaay xool. samp bi ndax euh, jëmmi jëmmi gis mu bépp rek daa am ko samp wala yow yaay dem ba yëg samp rek. yaa yaay dem ba yëg samp rek yaay xam ne war ngaa samp comme ni kuréel yëpp hmm. xam ne war ngaa samp nga samp. boo xamee nit gars yi bu ma sampee duñ dem nga bàyyi ba ci kanam a kanam wax foofu it am na am naa lu ma fi muy bu dee gars yi ñu ragal loolu waaye mooy ab air bu dee bu dee daaj bi dafa kawe faaw bala nga ko mën a wàcc samp samp day samp bu pare mm-hmm. faaw waaw balaa air bi wàcc faaw samp am waaye ab air lu mu kawee lu mu bu kawee li fekk yaa ngi jàng di dirim dirim du wàcc mukk waaw fa mu nekk lay nekk mm-hmm. ba keroog ngay samp wala nga bëru mm-hmm. waaw ñaar yooyu day wàcce day wàcc am njàng maam bëru ak samp moo tax njàng wàcc bu dee dafa bu dee daaj bi dafa kawe te te xëy na fi ngeen di jàng mu mënu leen a daajaat bëru leen la bañu ci topp ma bu njëkk mën naa metti comme comme li nga bëgg nga xëy na sama classe hmm. dañuy dégg nii rek hmm. ndax mën nga ma li nga bëgg waxee dëgg dëgg exemple waaw hmm, exemple ma isin ko ci sonos الحمد للحق المبين من كونه لي يبيد على الكتاب المستبين مع جميع النعم moo delluwaatee ci alhamdu gi bu dee ayib dafa kawe xam nga li ma la soobee sax waaye bu dee ayib dafa kawe ci alhamdu gi ci lay sampe misaal la nag. xam ne samp gi moo lay may nga mën koo wàccewaat fa mu a wàcc. waaw Amadou gi ci ngay bëroo laa bëgg a wax. samp a delluwaat ci. waaw ci Amadou ngay bëroo. bu bëroo yoon xaaj ji ba ca topp. xeer mm-hmm. mën naa wàcc. moo tax moo tax bu fi ne ñu koy daaj ñëpp bu ñu daajee dañuy dox tuuti daanaka bu ñu jàngee ñetti fëri dañuy daajaat mm-hmm. ndax day bëri bi daa teel maam bëri bi day teel mm-hmm. waaw daanaka ci Amadou gi ci la ñuy moo tax moo tax mu yàcc loolu loolu exemple boobu laa jox ni la nit bu daaj bi kawee boo bëroo rek daaj bi wàcc waaw waaye li fekk mi ngi dum di dem rek moom du wàcc mukk hmm. waaw. macha allah jërëjëf ci leeral yu am solo yu mu mel ni bokk yi kon suñu jotaay bi tey dañ koo jagleel sëñ Aliou Fall xam naa nag dikk nañ ci mooy bu am na lu ñeen ci yóbbal daanaka jotaay bi dafa yaatuwul moo tax daanaka dañ leen laaral rek léegi nag seenu gësoog seenu ittewo mooy tax ngeen a xam dëgg-dëgg fañ fañ fañ bëgg a jëm moo tax dañ jaar jàll rek léegi ñu ngi woon ci jës bu ni nga ko waxee maanaam air la boo xam ne nekkul airu mokkat jës bu da cee rawati euh, samp geet foo ko bëgg a sampee nga koy sampee amaatul ab yeesal njàng mépp benn benn daaj la nga xam ne kon yow fi mu nekk dañuy yow mi doon seetaan da ngay bàyyi xel ni samp gi moom am na ci waaye xool fa la samp arrangé fa mu nekkee sa ndimbal nga sampee fa muy lu am solo fi nga xam ne fi nañu daanele la mooy xasaayit googu nga xam ne moom duñ ko laal duñ ñëw mukk ci jeexal jotaay bi te laaluñ ci mooy euh, jëmmi midaad yi midaad yi mel na sëñ Aliou Fall xam naa nag médailles yi Serigne Mbacke Fall jàng na boo xam ne sax xëy na moo moo gën a siiw ci ci eeram yi mu jàng midaadi wa aqlaami liman sasahal yamma kama sasa seytaana wal jahla ma allahu an asan xalquhu amma مازي بالباقي الذي قدمتي رمى من النار وسيدان غوث مندمى بربي إلى غدا ممن عنده الأسماء نويت بمدعي من أتاني نواله wa inni bima lighdi qadhan hiyaluhu nazaaka tamunin saqadhan misaluhu wa wajani dunya wa ukhra jamaluhu nabasul fira lillahi jalla jalaluhu بمدع الذي أمداه زهزع الحسنى يرود بجاه المصطفى الله لي زمن عليه من الباقي سلاما وعيس عن يقيني يقيني سك في السر والعلن ولي قاد ربي بالنبي البشرى والأمن يميني عليها دين قات يري سنن شفيعا كفاني دون در ذوي البغي تربت بأني كيس بانتباهه وأني ريان بأصفى مياهه waaw air bi mu jàng ci midaat yi dox di waxaa ni la waaye nii la man ma jàng ko ci midaat yi mu doon air boo xam ni comme ni ma waxoon sànq ci yee weesu ay airam yaakaar naa sax sama gars yi sama gars yi may seetaat ñi ngi am lu ñu ñoom ndax jëmmi air moo demee noonu yow mi koy jàng sax mën nga mën nga am yëg-yëg ci njàng mi ndax is buy jàng nañ ci salaahi bu bu bu neex boo xam ni yaakaar naa koor gi dal ko ci topp bu neex neex sa boo xam ne kii ko ko daal yaakaar naa suñu waat xuma boo koy jàng boo koy dund yow da xam ni ci jàng lii yëg-yëg bi mu ko doon jàng yow mi ngi mi ngi. man itam suñu wàll comme man damay damay ñëw di gëstu di bëgg a xam xam boo ne ma jàng nañ ko salaay ca ca ma xaw a réer it ngir ma xam man ma xam nañ ko jàngi damaa bëggoon nga nga dikk ci man bu ko defee man ma mën a xam fañ ko jàngi ak ni ko jàngi waaw damaa salaay googu laa <laughs> xam nga itam boo boo ma ko junjee damay bëgg li may junj ma xam ko ak itam ñiy seeraan xam xam ko. salaayi bi fan lillahi zillahi wal xalam bi bi fan lillahi lam tanhuni sulam ma di di di ci laa xam ne doo ren léegi hmm. ba tey xam naa waaw sax bu bu mu jàng eh, bismillahi alladi quranu qad nazala hmm. ko jàng ci yaamu karima day fi waaye dama ko indi ci bismillahi alladi waaw moom tamit air air boo xam ne moom sax daanaka airam yëpp neex wax dëgg yàlla waaye mm, bii moom bii yam nañ ko ndax xëy na moo ci gën a moo ci gën a moo ci gën a neex a jàng te it moo ci gën a yomb noonu la nga mën a waxee. bismillahi rahmaani rahim ak Cheikh Moudou Fadel. bismillahi lazil quranu xanasala minhu ibtidai wa arjo indahu nusul ميله خبيلا على وسالب تسلم البلاد عليه بالآل والأصحاب والفضالا إليه تبت أيدا ويغفرني ذنبي ويستر عيبي بالذي فضل waaw lii mooy lii air bi moom la jàng yaa mukrimat dayfi te ma indi ko ci bismillahi lazi qur'aanu qad nasara yaa mukrimat waaw waaw xëy na jàng na ko fii waaye man bu ma ci dégg ci yaa mukrimat la ko jàngee mm-hmm. ay inni yaqulu waaw ay yooyu ay inni yaqulu yaa mukrimat waaw waaw même air bi la waaw moo tax mu doon air boo xam ni bëri nag dina dina dina kii <laughs> ndax ndax daa amut ay samp ak yooyu moo tax daanaka faaw bëri exemple bi ma jox mooy air air air bu amut samp rek faaw bëri dafa war a metti maanaam bëri moo war a wóotu samp ba ca foofa. moom moom air bi amul samp. Ah, air doon te amul samp. Hmm. maanaam bëri dafa war a dafa war a kawe waaw. lool loolu ab jàng la ab jàng la boo xam ne dañ koy yóbbaale. dañ dañ dafa am ay ruq xar yu nekk ci njàngale de yóbbanti ñaan yeeg siyaare yeeg yëpp. Hmm. ñu lay jottali nuyoo boo xam ne mënuñu ko ñàkk a jot mm. sëñ Saliou Mbacke sëñ Abdou Lahat sëñ Jean bi nee day topp jataay yi ñu ngi ciy am mbégte bu baax ci sëñ bi ak ci ñu ngi koy doxalee macha allah euh, kàddu yu mujj yi rek ak mbokki taalibe yi siyaare tey rafetlu liggéey bi ñëpp rek jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Fatah ñoo ngi nuyewaat di siyaare waat sëñ Aliou Fall nag moom kenn la ci magi jànkat yi doon ko xam ne am njàngam dina delloo nit ñi fu sori dina dina leen dina leen delloo ci yàlla ndax am na air yoo xam ni mën naa delloo nit ci yàlla donte yow mi koy déglu xamoo li béy di wax waaye boo dégloo jëmmi jëmmi maam air bi man mën nga mën nga mën nga saxel maam soxol mën naa dem fa sori moom nag dafa bokk ci ñooñu ndax am njàngam daw na yaram te it neex na lool tubaarkàlla bëriwut bëriwut air koy dàq ci ci ci njàngum léegi moom suñu Aliou Fall doonoon am jàngkat bu mag boo xam ne ñoo ngi ko ñaanal suñu borom yërëm ko taxaaru ko àjjana parce que Cheikhul Khadim mu doon ko xam daal donte bëri bëriwul nit ñu koy leelal sax ngir xëy na bari waaye ku ñu war a xamal xamalal la ndaw ñi ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum jàng ñu leeral la leen ko ñi nga xam ne xam nañ ko bu baax a baax baax doon sama sant gi xamuñ ko xamuñ ko lool lool waaye ñi nga xam ne xam nañ ko bu baax war dañoo génn leeralaat ko mag ñi leeralaat ay eeram indiwaat ay eeram loolu nag moo taxoon tey ñu tànn ko ngir bëgg ko leeral wax daal eh, di gërëmaat dañaan yàlla mu tas mu indiwaat ñu fii ñu defaat yéen ay ay émission émission barke Seex Fadal asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf euh, mbokk yi ñu doon seetaan mooy jotaay bi émission bi ñu woowee jotaay bi hmm. di am ci bu baax mboolem ñu doon àndal sant giraange suñu Fall soxna Lay mi moo sponsorisé jotaay bi waaye suñu asan bi ku jàmbaare ci liggéey bi loolu macha allah gis jëmm ji waaye liggéey moom loolu ñu ngi koy ñaanal hmm. yàlla defal ko tawfiq ak barke wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ilaha